dañu jël sama doom di acharné wu ci moom loolu dama koy ñaawlu <laughs> yow Aliou Ndiaye muñal rek ñu gërëm soxna Mata Sey borom muraay bu jekk bi foire foofee ci Tëngéej moo ñu doon tënkal xibaar yi ko dig daje dans moins d'une heure ngir mu teewaat yaatalal ko mbokki euh, téléspectateurs yi gërëm également tonton Ousmane si dans la cour de l'école invité waa baax ñi Modou Fall ak waa Tam rythme wax dëgg nag yàlla si Lamine joxaat ma congé dégg nga parce man vraiment lii moom mënutuma ko dékku daal nag ma joxaat congé parce que ngeen ma amee dafa bari noonu euh, Mati Diop Diarra maa nuyu baax baax di kontaan ci yow doo ko nuyu ci beneen émission pas di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñëpp ñi bi ñu ngi ñuy teewlu ba mu des bu dee kooku mi ngi ne xucc di ñu xool boo kucci voilà di wax frère ñu ngi lay vraiment booy eh, Alioune Ndiaye jàmbaar fakk tëdd mais ba tey maa ngi ànd ak ki nga xam ni mooy jigéen ju mën góor l'incontournable Fabel celui qui a détourné pronostic du monde Fabel il est en train ah, d'émerger cette émission n'est pas musicale elle est très très très très très très fort. vraiment saa ki yow la saa ki a la mën nga. Fabel suka maa ngi lay nuyu bu baax a baax la jàll. dégg naa tànn dégg naa tànn jaa ngi koy woon mbokk yaa woon naan ko demal boo demul dee boo demul de mbay fàbbel mais ñu gis laay laay lala kii dafa mel ni dafa juddu reer dafa juddu waale ne paat dafa mel ni dafa juddu waale ne paat laay laay lala mu ngi rek bu sukaay mu lay yàq li mel ni xel vraiment fàbbel tu es en train de oh. de de de relever le défi vraiment Fabel Sénégal de non mais vraiment ñi ma woo Brésil Amérique a fépp dañ ma woo ne ma vraiment Fabel kontaan nañ ci yow. Babel saytaane may ñu may ñu dégage. kii kii moom la kii kii. dégage ak ah, yow la dégage. suka bul mer mbaay bul fàtte ni noonu nga fi ah, defoon <laughs> noonu nga fi ah désiré sa désiré ñëwaat ci désiré bi désiré la désiré suka yàgg nga fi te mosoo désiré ñëwaat ci désiré bi la désiré de Fabel regardez ce désiré c'est vraiment kii nandite la wuteel waaye man ndekete ki ma ne ab kajoor kajoor boo xam ni xàmmewul xàmmewul janj ak joor seer boo xamante ni mais vraiment favel ci entre de détruire tous les ba may ñu waaye tamit quand même je vous en prie yaa ngi désiré woo defoo dara mais la la météo te bu soo désiré may de <laughs> te may ñu ci prix xanaa ah, lii moom nga doon <laughs> may ñu <laughs> nee na dégradé yoo voilà merci. ah ñii di ma wooñ waaw. ci yàlla sëñ bi maa ngi ci émission. Salim Tomi Nalax Ndiaye. mu ne maa fi jaar. premier Babou Laye. Fabel. voilà bi ñu nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu di am mbégte ak kontaante di nuyu technicien yu xare yi nga xam ne bi Fabel ñoo nekk ci xarala gi. Ah, ça avant tout da nga may permettre ma nuyoo d' abord euh, mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à travers Walfadjri leeru jamono comme niñ leen koy defaree rek saa su nekk mhm. euh, dañuy seet li nga xamante ne moom lañ la askan wi soxla mhm. ñu andi leen ko waxtaanee ko daal di koy euh, pàccu ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yi mhm. di am mbégte bu baax a baax waaye di nuyu ki nga xamante ne moom mooy seriñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla ñu koy ziar bu a maay mais di nuyu aussi sëñ Bass Abdou Khader bu baax a baax a baax ñu ngi koy nuyu saa dama la doon dégg nga ko doon nuyu avant tabaski mm-hmm. Mm-hmm. nga ne <laughs> ah, ñu ngi koy nuyu bu baax waaye Fabel bi dafa laaj Fabel yow da nga jëw émission bi pour saytaane wala interview bi arrêté naa ko la interview. ok mais ça. j'arrête la interview que j'ai fait ngay bëgg a dee naan sii caba dafa mel ni maamam moom moo sanc tubaab maamam may Molière waay waay caba dimbali ñu boo xamoon dara doo mujj ci animation bi nga mujjee ci animation nga war a xam ni cuude nga yow fël ci ci benn école bu mag man ak yow xamoon naa ni daañu daje way xamoon naa ni daañu daje boo jox ñu sommaire. xamoon naa ni daañu daje yow yaa nii fële ca école ma fële ca kaaru ba naan seng ak sabandel Dominique ak Thiam luy dem ana waa avance yow te ñu daje fii eh, oh, oh, ban scientifique dégg naa scientifique boo jox sama yaw waaw bu ma fàtte waale sama clip bi bu Fallou Dieng bi toujours moom laa lay ñaanaa mister jële ku mu daggal tubay ngembalaak lay xaar su ka di la jaajëfal borom kees kay benn dëkk ñaari parce que kooku Euh, vraiment waroo ko mais jox ñu kii sa sa sommaire je vous en prie sommaire je vous en prie alaaji Malick Gakou ma nga xamante ni bi demoon na seeti ji ki nga xamante ni ki moom la ñuy tuddee Karim Meïssa Wade lan moo waral loolu alaaji Malick Gakou dana cee indi ay leeral maître Madické fas yéene balu ak ta wax tamit jamono ji nga xam ne moom lañ toll nii nan la jàngatee mbir mi nga xamante ni bi mooy affaire étrangère loolu lépp maître Madické dana ca indi li nga xamante ni bi moom la ñuy wax ay leeral Mamadou Diop Decroix ñoom ñu xamle woon tembe kat fi mu toll nii danañu jéem a yëngal dëkk bi après ki ba léegi dañu ne selaw nit ñi ne fan la yëngal googu toll loolu yëpp Mbodj Diop Decroix dana ca indi ay leeral Serigne Assane mbake ma nga xam ni dañ koo tere woon mu wax ak journaliste yi mu woote conférence de presse lan moo waral mu def lu ni mel moom Serigne Assane mbake ndax dafa xotti ndigal ga nga xam ni moom la ko police joxoon waaw wala déet ak xar ma nga xam ni moom la yëkkati daal di koy jox Karim Meïssa Wade di xar mu rëy ñenn ñi jàpp ni mënoon na koo jox ñi nga xam ni ñoo nekk ci bitti loolu lépp dana ca indi ay leeral revue de presse yaa jàmmee Balla. bi dafa neex sax vraiment c'est formidable bu ma ne comme mais Fabel sa tur bi dafa ànd ak émission bi kon Fabel tout à l'heure Fabel vraiment muy lu am solo euh, Fabel ñuy am mbégte di wax ne. suñu sponsor leader. moom jooni jooni mhm. ñakko ko arnaqué sàcc yu mag yee yàlla na leen yàlla alak ndax jooni jooni lu ne këtt mun mhm. a co jonn mhm. moom jooni jooni vraiment euh, nekk suñu esponsor leader ñi ngi am mbégte ak kontaante ci moom mais euh, Fabel maa ngi nuyu ñu naan caare madame Mbengue madame Mbengue di nuyu soxna Mbengue Ndeye Fatou Thiaw soxna Diop ajaratu Penda Diallo Gueye alaaji Adama Gueye mhm. di nuyu bu baax ki nga xam ne kii moom la ñuy wax euh, mhm. Serigne Abdou Mangane Fatima madame Mangane Sadio madame Mangane uh-huh. Diop si mon ami mon frère di am ci moom mbégte ak mhm. kontaante mënuma fàtte ki nga xam ni moom la ñuy wax mëgëy borom nootu guy jamaa ak maalaw Seras borom ñooro waaw mu ñoorul doy mu am ñoor di am ci moom mbégte kontaante mais <laughs> aussi tamit di nuyu bu baax ki nga xam mooy ambulance Mbaye Tyson Machalal ba di bu daandaat di nuyu Keba Kanté mon ami mon frère di am ci moom mbégte kontaante mm-hmm. mais aussi di ñi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu Aïda Fall ca diwaanu Géejawaay di nuy sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Mbacke axlaa di am ci moom mbégte ak kontaante eh, di ko ñaanal mu daal di ñuy gën a sànni ay ñaan gis nga waaw saa gis nañu sommaire bi euh, gis nañ ci ku ci mel ni Malick Gakou moom euh, dinañ dem euh, waxtaan ak moom laaj ko lan la doon uti fële ci prison Rebeuss doon seeti Karim Wade mm. waaye gis nañ ci aussi ku ci mel ni Madické Niang moom mm. aussi dinañ ñëw ak moom ci ay laaj mm. aussi ku ci mel ni Mamadou Diop Decroix mm-hmm. moom aussi dinañ ñëw ak moom ci ay laaj ndax gis nañu xamuñu daf ndax dafa defatul buzz comme ni ma koy waxee saa su nekk moo tax <laughs> Abdoulaye Wade bëgg koo kii wala nu mu demee loolu yëpp dinañ ci ñëw Serigne Assane Mbacké Serigne Assane Mbacké Mbacke gannaaw ba mu yóbbuloo <laughs> Serigne Assane Mbacke mm. ah gannaaw ba mu yóbbuloo Karim xar mu baax moomu damaa juum saa nag yow it yii da ciy <laughs> bokk nag ah, ah, ah kii damaa juum <laughs> ba mu yóbbuloo Karim ah, xar mu baax moomu dinañ ci ñëw ah ndax amul ñeneen ñu ko gën a yelloo ah dinañ ci ñëw ci ay laaj saa kon noonu nañu gisee sommaire bi vraiment muy loo xam ni lu am solo la parce que c'est une émission professionnelle <laughs> euh, nga xam ni lépp dañ koy jël teg ko ci temps lépp lu ñuy liggéey bu ñu defee sommaire ba noppi Fabel da koy expliquer intellectuellement ak tamit voix douce bi nga xamante ni bi macha allah moom la ko yàlla jox vraiment et puis une voix intellectuelle nga xam ne voix bi raxut benn euh, kiiw eeru Bawol Bawol boo déggee voix bi nga xam ni vraiment c'est extraordinaire c'est elle qui a fait les bancs vraiment nekk xasuma kenn nag di nuyu euh, pata bi fi daal nekk moom mu tuddati vraiment mais di wax ni Fabel macha allah yal na la yàlla lafal <laughs> yàlla lafal cat liggéey bi nga xam yaa ngi koy liggéey parce que c'est un travail professionnalisme euh, ça c'est extraordinaire donc Fabel lu ñuy laaj en tant qu'un professionnel lu ñuy laaj hein ban clip clip Adune Ndiaye j'espère que keleel nga ma fàllu jëwe bi <laughs> may ñu ko ñu ñëwaat ci plateau bi avec la complicité de l'estagiaire Moussa Ndiaye ak clip merci aywa clip waay baa la bëgg soo amul dama lay créer mais euh, di wax ni Fabel euh, quart de finale yi. Mhm. pour ñu tirage demi finale yi. Mhm. Bongo d'or Bongo d'or euh, jeudi bii di ñëw la incha allah rabbi mhm. ñi qualifié. nañu ñëw te nañu ñëw cinq heures et demi na leen fi fekk amut bii yoon nag tardé surtout pas Ndiaga Mbaye 2 maa ngi ko koy ak caat ñoom ñaar ñoo dàq tardé ak booy bi dëkk si bi xotaan euh, ak Ousseynou ñoom ñëpp nañu ñëw heure daal dee def li nga xam ne mooy tirage bi jeudi la incha mhm. allah loolu defe naa ni lu leer la pour daal di leeral di wax ne ña nga xam ni ñoo doon sàcc émission di wanga wangal ñàkk fayda yi di sàcc émission caba ba muy def ci tabaski gi bi yoon caba dafa génn États-Unis rek ñoom ñu dem ardo fu de boobu ma jaaxal ba léegi xam nga keps ak beneen booy boobu kensi booy booy booy booy booy booy bu soof boobu rek kensi keps keps ak booy bu soof boobu nekk TFM rek ñoom ñaar ñoom ñaar dañoo dem defi keps moom xam nga deux la nekkoon tekki woon fa tekki woon fa lu bari ay man de dugguma fa de léegi nag ma nga ma ma nga TFM di wax ay permanence émission yu war a ñëw eh, eh, émission moo war a ñëw ci kanam téléspectateur. après bu journal bi jeexee. dëkk ndeysaan ay émission yu rëy la ñu yoroon ñu s <laughs> après bu émission bi jeexee bi émission mooy ñëw. saa moo tax tabaski gi mu ànd ak booy boobu mbooy bu nooy boobu rek dem di lambar lambar yi def seen émission yu ñàkk fay waaye caba dafa génn États-Unis ñu yàqu aywa ëpp loo yow ñu liggéey suga ci laa tudd ko fi daal taxaw raxas sama làmmiñ. astafurlah. ëbla astafurlah astafurlah euh, kon dañuy Aliou Ndiaye dañuy dem directement seeti président Malick Gakou <laughs> dalal ko ci plateau bi. Euh, merci euh, président ñu ngi lay nuyu. nuyu Sénégal. Mhm. di am mbégte di am kontaante. Mhm. bu baax ci li nga xam mu nga def nii vraiment muy dalal. Mhm. muy lu am solo pour moo waxtaanee ñi nga xam ne ñooy Sénégal yi. donc loolu mënu ma def lu ma kontaan ci. wane ci mbégte ak kontaate dina déglu nga laaj pour ma tontu. waaw président Malick Gakou. dañoo gis euh, nga dem euh, seeti ki nga xamante ne moom mooy euh, Karim wadd dem seeti woon ko foofu nga xam ne mooy prison bu rëbës. <laughs> ñu bëggoon xam ana lan moo doon sa tànk foofu. soxna si bi nga xam ne dama dem pour seeti ji xam mhm. est parce que dafa nekk un homme nekk koo xam ni. Mhm. ku am solo la pour le Sénégal. nekk koo xam ni. Euh, dafa jaaroon ci état bi papaam nekkoon ki nga xam ne mooy président de la république donc mu am expérience politique. Mhm. nekk koo xam ni aussi tamit du sama noon nekk koo xam ni vraiment papaam sama xarit la. Mhm. kañ te musuma wax lu ñaaw te yàgg na ñëw Guédiawaye nekk fa et puis tamit di jàppale waa Guédiawaye loolu bokk ci li tax man dama naw képp koo xam ni yaa ngi jàppale bande yëpp. Mhm. loolu bokk ci li tax ma dem seeti ji ko pour dem waxtaan ak moom. Uh-huh. donc waxtaan bi nga xam ne moom laa waxtaan ak moom je pense que lu am solo la uh-huh. euh, pour li nga xamante ne bi moom mooy moom la ñuy wax euh, pour réew mi mën a am dialogue politique opposition bi dañu war di waxtaan uh-huh. donc loolu nekk lu am solo comme que a yor un parti boo xam ne parti bu mag la muy le grand parti war naa a waxtaan ak le parti opposition te comme que Karim Wade moom moo nekk leaderu PDS. loolu bokk ci li tax ma dem pour toog ak moom waxtaan ak moom. parce que moom mooy candidat PDS. loolu lu am solo la moo tax ma dem fa. Eh, donc loolu lu am solo la président Malick Gakou mais bu ñu xoolee euh, xalaatoo ne jël nga temps trop pour dem seeti euh, Karim Meïssa Wade. Euh, parce que ba mu fa nekkee ak léegi mi ngi bëgg yàgg. mi mais il n'est jamais trop loolu tubaab moo ko wax donc lu baax du yeex je pense que loolu bu fekkee jàng nga. war nga xam loolu je parce que euh, xam naa tu n'as pas fait les pour cette raison loolu tax nga daal di dugg ci question boobu mais si tu as fait les donc di nga xam ni il n'est jamais trop tard de bien faire donc dem seeti di Karim Wade lu baax du yeex dem naa seeti ko te et nekk loo xam ne lu am solo la. mais loo waroon njëkkee la rek. donc dama wax ni bon ah. am na ñu daan nekk ci ligne bi jël leen quand même. Euh, kon Alioune Ndiaye dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko ci euh, téléphone bi ñëwaat salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu Fabel. ñu ngi lay fay. waa di nuyu bu baax ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax euh, euh, euh, Alaaji Malick Gakou. Gakou ñu ngi ngi lay fay mais yëkkatil sa baat. <laughs> yëkkatil sa baat. baat bi dégguñu ko. waa léegi Gakou ñu. waaw. parce que gars yi dañ ne bon ni nga taqaloo ak ñi nga xamante ni bi ñooy waa PDS nii nii nii. waaw es ce que nekkul ni yow yaay plan B wu PDS quoi. loolu rek laa la doon laaj quoi pour ëllëg si biir yow nga daal di samp sa ndënd PDS topp ci sa ginnaaw est-ce que du loolu tamit grand parti loolu ngay liggéey quoi bu dut Karim di yow bu dut kii di kay am déet loolu laa doon laaj. Euh, jërëjëf sëñ bi man nekkuma benn plan A wala plan B man dama sama sama parti muy le grand parti grand parti nag fas yéene pour laaj réew mi pour suqali Sénégal parce que Sénégal dafa toll foo xam ni économiquement dafa daanu économiquement dafa suux Sénégal foo xam ni nit ñi dañu sonn. ñu war leen a dimbali boo demee ci banlieue bi gis coono bi nga xam ne moom la ñu di sonn man ma ne ko ku ma xam xam ni lépp loo xam ne dama ko am dama koy partagé ak nga xam ne bi ñoom la ñuy wax néew di bokk moo ma dugal sama ci politique am ay pour fas yéene suqali li nga xam ne mooy Sénégal mais nekkuma benn plan B ou benn plan A je pense que loolu mooy li nga xam ne mooy lu leer man nekkuma di def ay deal donc seeti bi ma seeti Karim Wade li ma wax loolu la Karim Wade war naa seeti parce que c'est un homme politique nit la koo xamante ni kii aussi tamit euh, sequñu lu ñaaw donc dem naa seeti ji ko keneen ku ko jàngate ne yaa ko jàngate ne mais en tout cas li wér te mooy maa dem seeti Karim Wade seeti naa ko ma tey ah <laughs> loolu mooy <laughs> wax ji jeex na mu nekkoon président Malick Gakou ñu koy jaajëfal bu baax a baax dalaloon ko waaye ba tey dinañ am beneen invité ndax bàyyee guñu ba léegi. nga xam ne moom mooy am euh, ma Madické Niang euh, moom nag euh, dinañ ko seet si dafa mel ni yegg si na de suñu gan asalaamaaleykum sëñ Madické ñu ngi lay nuyu. bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bu nu sant yàlla julli si yonent bi. di wax Cheikh Sidi Mokhtar xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. ak njabootu Serigne Touba gi. di la déglu pour nga laaj ma tontu. waaw euh, sëñ Madické Niang en mhm. fait euh, ñun liñ la doon laaj suñu première question dafay nekk li nga yekk Macky li nga yekk Macky Sall yëpp ah ñu ñu jóge ci bis bu sel muy bisu tabaski est-ce que tey euh, jotul nga baalu ko àq jéggalu ko ndax li nga ko wax yëpp te tey teewul mi ngi nii bàyyi na leen yeneen di ngi génn di tukki di dem di ñëw est-ce que tey jotul nga baalu ko ci bis bu sell bi ñu génn. kii benn fan kooku mënul la ko baal parce lépp lu nu am. ni ngi ko am si wàllu tukki deme ñëw parce que un avocat international nga jël ko def ko un avocat national loolu mooy xañ nga ko alal ju bari Macky Sall lim ma xañ si alal kenn mënu ko wax parce que bul fàtte ni dana may soxla ba si ay procès yoo xam ni day am si dëkk yu mag yi lu si mel ni Amérique ñu si bari maay seen avocat li nga may gis ni maay avocat bi yom see eh, Beyoncé am na procès Macky Sall ne ma doo <laughs> li nga may gis ni man maay avocat ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Messi di footballeur bu mag man mi maay avocat am je suis national je ne suis oh. mm. nga xamante ni bii mm. gii roog dundam kenn rek la mus a koo xamante ni kii bitim réew la nekk muy Hissène Habré te Hissène Habré bi mu ñëwee Sénégal la ko soog a defaan man avocat international la te Macky Sall xañ na ma ay bés yu baree baree baree loolu bokk si li tax ma wax ne Macky Sall lim ma def moom si boppam moo war a ñëw ne ma Malika ma ne ko naa mu ne ma baal ma àq may xool ndax dama koy baal wala duma ko baal waaye man su ma jami bopp duma ñëw mukk di ko baalu àq parce que defu ko dara dara dara dara mu daal di xeexee rek daal ma di bu mu génn li ma xay si ay millions kenn mënu ko ke bi ma defee calcul yi mi ngi nekk quatre cent millions d'euros yoo xam ne ko am si durant période bi nga xam ne fi si lañ daanu si nguur gi parce que boobu laa man bi ma nekkee ministre dama doon jàppale Sénégal rek mais li ma doon gagné avant mu ëpp doole parce que dama doon gañe ay procès yu mag a mag a mag a a mag loolu def naa ni kon Macky Sall si boppam. moom moo ma war a baalu àq. soo weddee li ma lay wax dangay laaj sama soxna Adja Khoudialo Gueye. si boobaa sa la lay tontu. wax la man maître ma di ko li nga xam ni moom laa liggéey si biir réew mi. ok waaye maître dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi. waaw euh, ñu jël ko mu laaj question ñu ñëwaat asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu Fabel bu baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax. waa di nuyu bu baax ki nga xamante ni kii moom la ñu naan maître Madické maître Madické nuyu naa fay maa ngi lay fay waaw maître Madické man laaj bi nga xamante ni bii moom laa doon laaj benn laaj kepp la muy baan muy li nga xamante ni bii mooy ah, mbirum bitim réew ak na nga xamante ni bii noonu la mbir yi jaxasoo ak aj geeg na nga xamante ni bii la demee ak ya xew ak loolu lépp en tant que ancien ministre des affaires étrangères diplomatie Sénégal jamono juñ toll nii nga xam ni information yi ñuy joxe ñu ngay tiital ñi nga xamante ni bi seeni i euh, parents aji nañ te dégguñu leen téléphone diplomatie Sénégal ban taxawaay la ci waroon a amal loolu rek laa doon laaj jërëjëf merci def nga question bu am solo ba xam ni dafa jëm si wàllu diplomatie ça se voit que Mankeur Ndiaye n'a pas à la li nga xamante ne bi moom la wax diplomatie Sénégal barke Serigne Saliou Mankeur Ndiaye attanu ko te Mankeur Ndiaye attanu ko teguma ko ci politique Mankeur dafa wane ay limitam fii la fi dem fi nga xam ne moom la ñuy wax France diplomate Sénégal yëpp taxaw ministre yëpp taxaw fi ñuy waxee li ëpp solo Mankeur ñu ne anamu ñu ne ma sa toilette ya ñu daal di wëlbatiku daa léegi gisaat encore benn consul sénégalais boo xamante ni bi dafay dox si mbedd yi di colal li saw ba ñu jàpp ko France mm. daal di koy tuxal mu daal ñibbi ñibbisi waat Sénégal ba tey jii ñu dàq ko dama wax ne diplomatie Sénégal mm. fi mu toll nii dafa daanu mm. dama wax ni jamono ji ñu toll nii actuellement il fallait que ñu jël les hommes qu'il faut à la place qu'il faut uh-huh. man je ne suis je ne suis pas un demandeur mais je suis prêt à pour dimbali le Sénégal pour secourir le Sénégal mm. poste bi nekkul moo ma yitteel mais c'est le pays qui m'intéresse parce que c'est mon pays dégg nga dafa nekk réew moo xamante ni bi dama ko bëgg sa kaw a kaw a kaw Fabel dama bëgg Sénégal jëm sa kaw loolu bokk si lu tax may wax ne diplomatie bi du ma ne nanu ko teg sax sama loxo waaye buñ ko si tegee mu jóg ca kaw a kaw parce que je sais ce qu'est-ce que la diplomatie du Sénégal donc c'est pour cette raison loolu bokk si la taxoon rek euh, euh, may doon yëkkati kàddu kon ñu delluwaat si suñu sponsor ba seen sponsor ba laay wax jooni jooni di ko masaw waaw di wax sàcc yeneen sàcc yàlla na leen yàlla alal ay wa yow ñëwal jooni vraiment euh, Fabel mhm. di wax ni booy kii Alioune Ndiaye uh-huh. booy bi ay na ko arkira salaay loolu ko leen doon ne eh, kii ah, dafa doon kii rek booy la ba tàyyi du bouton F bi bouton bës bu dee bi gars yi wax nañ ma ko nee na ma bouton bi moom ngay bës dégg nga eh. bul di bësati kii bi dégg nga <laughs> kii Alioune Z bi Z bi la dégg parce que boo bësee bii mooy indi émission bi jeex na d'accord dégg nga. Alioune Ndiaye. léegi moom Alioune Ndiaye nee na xamul bi ma war a génnee xool ko léegi xoolal lii rek ama xamatul bouton bi ma war a feeñal Fabel rek la mën a wane xamatul bouton bi bouton bi la. Alioune Alioune Ndiaye da koo fini. Alioune xoolal Alioune mënatuma génne. Alioune Ndiaye da koo fini. Alioune Alioune. <laughs> boy ay wew ñu dem yow ci Mamadou Diop Decroix ay ca Mamadou Diop Decroix <laughs> dañuy daal di dem seeti ki nga xamante ni mooy Mamadou Diop euh, Decroix ah, ñu koy dalal nag euh, ci suñu plateau Nepad musical euh, Mamadou Diop Decroix ñu ngi lay nuyu hmm, maa ngi lay fay aussi di am mbégte mhm. di la nuyu di nuyu aussi Sénégal di la lu nga laaj pour ma amal ay tontu. Decroix Diop Decroix alors li ñu la doon question bi ñuy njëkk a posé rek dañoo gis ne fan yi laa bàyyi ginnaaw lu bare bare bare est-ce que du danga du ne li nga xamante ne nekkul li nga xamante ne dangaa defatul buzz wala danga xewatul wala dafa am ñeneen ñu ñu bëgg jël teg leen ci kanam moo tax kenn déggatul say mbir wala yow man def ma bës yow man li ma def loolu mun moo raw bës. mooy ba lal hôpital. filmé ma foto ma ma tëdd ci lal hôpital ba jaaxaan nga ne def ma bës. est-ce ñi ma àndal ñëpp kan moo ci tëdd ci lal hôpital. est-ce que da nga doon similé. déedéet dama ne ñi ma àndal laa bëgg nga wax ma kan moo ci tëdd ci lal hôpital. dëgg laa nag bu fekkee da nga doon similé moom eh, dama ànd ak moom. ci ngor. Mhm. mu jël nguur gi mhm. yàlla dogal ma ànd ko nguur gi mhm. te ma continuer nekk ak moom mhm. loolu day naa ni ñëpp gis nañ ko kon day naa ni ay bës bës man maay bës <laughs> man maay bës <laughs> euh, soxna kon yow defe naa ni dangaa xamul ab bës déedéet daal ndamb bu ree waaye dama ne xamoo bës parce que bu nuy wax bës wax dëgg fa yàlla nag fi mu toll nii maay bës parce que man euh, man maay wax di yuuxu état bi. di dal ci kaw ay mais. parce que ñu ngi dégg mouvement mouvement tout sauf Macky ñu ngi koy ñu ngi koy dégg ah, ci ab ci. waa tout sauf Macky waa d'accord waa tout sauf Macky man ca laa bokk nga dama def ma bës. bàyyi saboote bi di wax defoo bës bës laa def man maay borom bës. yaay borom bës maay borom. jël ki ci ligne bi après ñu ñëwaat dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi <laughs> ñu jël ko ñëwaat mbokk mi salaamaaleykum allo asalaamaaleykum Fadel maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu bu baax Mamadou Diop Decroix Diop Decroix ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay waaw dañu déggoon euh, monsieur Decroix nga wax ni da ngeen di da ngeen a da ngeen a war a jaxal dëkk bi waaw waaw waaye ba tey dañu gis ni daal affaire yi dafa sedd léegi ñu lay laaj euh, lan moo waral loolu quoi loolu nag lañ la doon laaj jërëjëf. waaw xam nga ñun dañ ñëwoon après tabaski danañ jaxal dëkk bi waaye après tabaski fekk tabaski ñëwul après tabaski la <laughs> wala déggoom euh, du soxla ñuy tëb tëb kii du dañuy jël sunu taa nag waaw ndaxte mënu neen ñu dem ca tali diw gi ak si xar yi Ah. boo demee ca tali ba mën na la jàpp euh, donc après tabaski daal euh, dee ñu déglu fekk gisaatoo tabaski booye boo xam ne ñu ngi ci après tabaski loolu lañ joxoon di loolu lañ waxoon li ñu waxoon musuñu cee jóg bu ñu kenn tiiñal tàmm ngeen tiiñal nit lool <laughs> waaw demal ñaxtu ji demal ñaxtu ji yow mii da ngaa mënta jaxal dëkk bi yawit après tabaski lan wax te fii ak ñëwut ñu ci après tabaski après tabaski jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di nuyu uh, ki nga xamante ne moom mooy Chérif Abdourahmane Fall ci laala xaadimul xadim ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu <laughs> bu baax a xaadim jënd ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ah waaye dañuy daal di dem eh, suñu invité yi la bokk ba léegi <laughs> ñu ko ñu koy wax Serigne Assane Mbacké sëriñ Assane mbake ñu ngi lay dalal. bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla. Mm. ginnaaw ñu sant sëñ sëñ Tuubaa tey di la di la nuyu. di nuyu di di di nuyu Sénégal. si waaye mën a nekk ni ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. di la déglu nga laaj pour ñu pour ñu amalay tontu. gannaaw buñ la fayee sëñ bi. dañoo mm-hmm. gisoon euh, ci tabaski bii euh, nga jëndoon maanaam nga indi maanaam xar mu baax. xar mu mm-hmm. xar rëy tarkal la. Mm-hmm. Euh, dem yóbbul ko ki nga xamante ni moom mooy Karim sa Wade. ñu doon la laaj rek sëñ bi ndax amul ñu gënoon yelloo xar moomu que nga doon ko yóbbul Karim Meïssa Wade. déedéet. ah Karim Meïssa Wade. Ah. Eh, day koo xam ni. Uh-huh. sama wóllëre la. <laughs> ndaxte Karim Meïssa Wade bi nga xamante ni bi mu ngi ci bitti. Uh-huh. dee naa ni ñu fi daan rey xale ñu bari uh-huh. daan naa leen jox am kuy mu rey. am kuy mu baax. loolu bokk ca la tax. Eh, man sëñ asan ma daal di gis ni kat ma nga ca prison ba. kon war naa mën a yëkkati am kuy joxe ko ngir ñu mën a def tabaskeem ca prison ba. <laughs> dee naa ni kon prisonnier ba nga xam ne mënta jóg di jënd ji am xar. nga yëkkati am xar teg ko ca loxoom kooku kenn gënu caa yey ku ci mel ni Karim Meïssa Wade loolu daal bokk na ci la tax <coughs> ñu ñu ma yëkkati loolu daal daal di koy teg ca loxoom Karim Meïssa Wade gisu gisuma kenn ku ko ci gën a yellu gisuma kenn ku ko ci a yellu Karim Meïssa Wade ku ca yellu la bokk ca la tax ma yëkkati xar ma teg ko ca loxoom waaw Karim bi ndax li nga koy ñaanal soxla soxla na ko <laughs> euh, sëñ bi ndax euh, Karim fee mu nekk ne natt mi moo ko fa teg rek waaye xëy na ñàkkul mu jëndee xar am na loola loola du dara soxna si xam nga dangaa xamul <laughs> li nga xamante ne bii moom la ñuy wax euh, maanaam euh, ak ak ak xam nga da ngay ñëw fekk koo xam ne mën na mhm. nga daal di ñëw def ko ngir kóllëre koo xam ne séq ngeen ko ngir mu yëkk nga yëkkati am xar teg ko ca loxoom léeg-léeg nit mën a jëndam xar nga yëkkati am xar teg ko ca loxoom mhm. bu ko defee mu bàyyi xar ma mu waroon a mën a jënd jël sam xar seeñu ko sécurité ko seeñu sam xar sécurité ko ndax ta tamit daf la cay jox ab cër loola bokk ca la tax ma yëkkati sama xar teg ko ci loxob Karim te leer na ma ni Karim Wade bésab keroog ba muy rayum xar wala muy sécurité sama sama xar lay siiñ eh. xar ma xam ne moom laa ko jëndal eh. moom lay siiñu ci lay tayit ci lay sécurité ah, gannaaw dee naan daal lu am solo la gannaaw leer na la sëñ bi dañu daal di jël ki ci ligne bi rek ah. euh, xool kan la mbokk mi asalaam asalaamaaleykum waaleykum salaam xobal ñu ñu ngi lay fay nuyu sëriñ Asal Mbacke bu baax maa ngi lay fay maa ngi lay fay lax bus. Hmm. yow journaliste yi eh, dañu la terewoon pour nga wax ak ñoom. Hmm. léegi nag yaa ngi nii di ñëw di wax ak ñoom. lu tax nga nga def boobu. boobu lekk mooy question bu nga xam ni moom laa la doon laaj. loolu lekk laa la la laaj eh, jërëjëf wasalaam jërëjëf. Eh, li nga xam ne moo nga laaj noonu laaj bu am solo la. ndaxte ba ba bañ may génne. dañ ne ma bul waxtaan ak benn journaliste. bul waxte kenn. waaye man nag kenn mënumaa teree waxtaan ak ab journaliste ma ne bu dee danoo am lu nuy nëbb lépp loo xam ne bi xam naa ko danaa ko wax lan ma doon def jaxaso sonal ma doon sonal doomu daa yu ñurut ma daan forcé naan ma sëñ Assane lekkal may bañ muy dank di ma ko rokkas far force dama koy nittali danaa def ab conférence de presse mbaxal mba mba mbaxal yañ doon def mooy mbaxal yu tooy xëpp di ma ko jox dama koy nittali tey dinaa nettali yeneen dégg nga parce que dañuy ñëw duñ la jox ab ab lekk gu neex ceeb ba duñ ko taan loolu it danaa ko nettali ceebu jën ya da ngay dégg ceeb oh, ceebab jën jën nga day xeeñ rek ca ceeb ba waaye aw jën doo ko aw jën doo ko ca gis doo ca gisaw jën jën ya xaw ma pénitence yi ñoo koy tegg xaw ma kan noo koy tegg ab ceebab jën daal boo xam ne daal moom li ma ci la mën a tere waat ne du ceebab jën mooy dana xeeñ jën waaye doo gisab jën waaw loolu it danaa ko nettali danaa nit lépp la nga xam ne mi moo am ca kër bu bu boo rombee di gis ataay dañuy xeeñ boo leen may kaas duñ la ko may loolu it danaa ko nettali danaa nettali daal lépp li nga xamante ni dund naa ko ci kaso ba dama koy nettali te kenn mënu ma ko tere nettali amul kenn koo xamante ni kii daal mën ngaa dégg nga am tere ngir man nettali loolee bu doon ñoom dañu bañ ko nettali ñoom kañ lii ñu ma def waruñu ma ko def daa may nettali ba mu saf te la la waykat bi wax rek laa leen di wax muy waykat boobu ku mu neexul toppal fële ku mu neexul jàllal fële ku mu neexul randul fële ku mu neexul toppal fële waaye dama wax ba mu neex ma eh, wasalaam eh, wasalaam Fabel ñu koy jaajëfal Fabel Fabel Fabel Fabel Fabel ban heure a jot euh, ça yaa ngi ci 19 euh, heures moins 19 heures moins 5. 19 heures actuellement xoolal émission bi dañuy def émission professionnelle mhm. actuellement il est 19 heures moins 5. Mhm. vraiment c' est extraordinaire xam nga euh, Fabel lii mooy wane ni euh, tout ça ça on respecte la la timing. Ah. Euh, vraiment ça c' est extraordinaire di wax ne Fabel su su kaay di. ay Aïssa Aïssa. allo ah, su kaa lan la <laughs> waaw mais nest pas yow danga ne woon dangay ngay xaw ma toog ba kii wala. Aïssa Aïssa. yaa ngi fan asalem a léegi loo bëgg. Eh. ah mën nga mën nga toog semaine bi yëpp. aywa nga ne doo toog. su ko semaine bi yëpp mën nga rek tey amul problème amul problème ok ciao. Souka Mbaye di ngeen ko fi gis suba incha allah fii ci Nepad musical Souka da ngaa war a sax gaaw nag yegg si ndax man damaa doyal fu mu toll day eh mooy caba kaay ñu tëj kii bi aywa mbokk yi téléspectateurs yi